sant yàlla la ko sant yàlla bu baax a baax man soo gisee fekk ma gën di tàkkee ma ñëw jël suma borom man nga sant yàlla bu baax yow bagage la nga am mooy waaw waaw sax si laa ko am portable si nga ko ñàkk portable ak Samsung Tecno Tecno yow commerçant bon sama grand bi laa nekkoon di yóbbu loolu bagage bi. bu leen mécanicien bi. moom kaw la. kaw la woon. affaire bi noo ko dundee. mën hmm, naa sant yàlla bu baax. noo yëgee woon sa morom yi nga bokkaloon yooyu. naa hmm, gëm yàlla. métti na trop sama gars yu bëri doy si fii laa toog yëpp de. toog. wax man numéro boobu. ci ginnaaw man ci ginnaaw si laa toog. ginnaaw man Tamba laa dégg. Ah. man bu may ñëw ma fekk bés bu fees ma toog après suñu gën a ko mën a booy toogal premier saa yi parce que accident bi ay trois heures du matin la xew ba ay six heures te bi bi accident bi commencé ñu ngi gisee ñu nga xam ne dañoo nekk foo ko ci malgré que yow yaa ngi sant yàlla dara gisoo lan moo la premier saa yi Thank you. Ay, dapat naman si Jericho.